njàkkare bu mag la ñii di ay junni junni liggéeykat yu Dakar naaf am gannaaw bi nga xamee ni si kii di Pape Sagna jëwriñ bi yor wàllum napp gi la ñu jàpp ni dafa nara a dakkal contrat bi dox diggante Dakar naaf ak état bu Sénégal. njàkkare bi mooy lan dañu nekk di liggéey ak benn entreprise bi ñuy wax Dakar naaf mu jëm si fin de contrat de concession si fin de contrat de concession boobu noonu à notre grande surprise ñu gis ni ba léegi. appel d'offre amul wala boog gisuñu ko li ñu gën a tiital nag mooy que ni dañuy gis ñoo xam ne dañu fa ñëw di visiter chantier bi ni ñoom ay soumissionnaire lañu te sirne moo leen invité. loolu nag li ñu siy dégg mooy que ni kon am na lu ñuy rumbandaat ci suuf muy sirne muy ministre de la pêche. Dakar naaf ña fay liggéey ci sénégalais bari na. am na lu ëpp 600 emplois directs ak ay sous-traitants ñoom seen ba la ko toppee ay junni junni sénégalais ñoo fay liggéey ak seli famille dafa tedd kon tey bu ñu toogee ba mu des élection yi des ay deux semaines wala une semaine hmm. ñu bëgg taf tafee affaire bi jox ko kan ka nga xam ne moom moom la ñu bëgg wala ka nga xam ne moo ëmb sëb sànqal hmm. loolu travailleur Dakar naa bi ñu ko nangu ba tax mu jàpp ni linguur gi ruumandaat tegul fenn di contrat bi ñu bëgg a ak ay doom biti réew benn marocain mi ngi ci ben turc mi ngi ci ak benn groupe euh, européen bo xamni leraluñu ñom sen capacité euh, ba xam expertise am nañu loolu pour mën parce que dakar Dakarnave dafa am labellisation internationale fu mu toll ni te amna bo boo ñu ñu ñu ko mën ci walu gog liggéey yu bareetul boo leen di xol au niveau international bato yi du bato yi paan soo ko ñëw liggéey fii ba paré euh, pa ay marchandise paan déedéet bateau yi dañ leen di commande dañuy jóge bitim réew di ñëw fii pour réparer sans ñu yeb marchandise dañuy jóge bitim réew pour ñëw réparer seen i seen i bateau loolu capacité la boo amul boo amul marketing international amoo labellisation doo ko mën a def te groupe yooyu ñu ñëw andi fii amu ci kenn ku ci ëpp compétence am capacité ñett ñoo ñëw visiter Dakar naaw ñu nga xaar ne ñeneen ba xam dina am ñeneen ñoo xam ni doo ko def de façon 4 en 4 minutes appel d'offre boo xam ne à l'insu des travailleurs syndicats yi nga xam ne tey jii ñoo fa nekk am sañ-sañ am droit de regard nañ leen boole ci biir waxtaan bi ñu xool di jaadu parce que ñoom ñoo redressé entreprise bi de cent 1999 à nos jours bu demee tey jii ba nekk benn boo xam ne affaire entreprise bu jongama ñëpp taaru ñëpp soxla ko tey jii mais grâce aux travailleurs nga ne léegi da ngay jaay affaire bi ba pare doo ci boole liggéeykat yi dans quel pays

benen plan ba bu ñuy def élection ba élection yi jeex ku war a toog bu boobaa dina dégg bu bu bu toogee na mu war a toogee ñu ñëw jàmbaarloog moom te nañu war a jàmbaarloog moom bu jaaree yoon ci yoon ñu jaar ci yoon parce que léegi daal dëkk bi toll na foo xam ne actuellement nit ñi ñi ngi def lu leen neex ñi ngi asaaloo dëkk bi parce que yaakaar dañu yaakaar ni seen nguur jeex na ñu bëgg a jël tontu affaire entreprise loolu duñ ko nangu.